tey jile 28 euh, novembre bokk na ci li ñuy fàttaliku ci atum 1944 li ñëpp xamee di ko tuddee Caaroy euh, 44 muy ay événement yoo xam ne daanaka foofu la tàmbalee ay tirailleurs sénégalais yoo xam ne dañ leen téewoon ci geer bi euh, foofu bàyyi woon li ñu indiwaat leen fii ci réew mi ñoom nag ñu doon laaj seeni droit ci jamono joo xam ne dañ leen doon ñaax ngir ñu dem feneen ñu lànk loolu ñii di colon yi jàppee woon ko lu ci mel ni mutinerie maanaam fippu ba tax na ñu fàcc ñu bëri ci ñoom loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu àndi ca ak Fatou Kiné ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 2015 li jëm ci muuru ba daj ñu seetlu ko ci réew yi jullit yu bari ci Afrique loole sax nag dem ba indi ak jaaxle moo waraloon mu am yenn ci réew yu tere woon muuraay boobu rawatina ak réew yooyu di xeex terrorisme bi fare ci Boko Haram fii ci Ndakaaru ci ndoxteelu weeru novembre mu amoon ak forum bu amoon mu jëm ci jàmm ak kaaraange président euh, Macky Sall gannaaw ba ñu ko laajee euh, ci lislaam ak Sénégal la mu tontu nag ci xeetu muuraay boobu ndax waruñoo dem sax ba tere ko ci réew mi boobu ba tey ñu gis ni daanaka coow li fayut ci xeetu muuraay boobu. ñuy fàttaliku nag keroog bi ñu tàmbalee jaay. vin boobu nag bokk ci euh, domaine euh, du clos des baobab millésime 2020 ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 2021 gannaaw nag ab ndigal bu tukkee euh, ci kilifa yi ñu daal di maye nag sañ-sañ ngir ñu defaree vin boobu fii ci réew mi ba noppi di ko jaay projet boobu mu ngi tàmbali woon ci atum 2013 ca Nigéria lu gàtt gàtt téeméer ak fukki baykat faat nañu leen ci anam yu ñaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 2020 euh, Boko Haram ak état islamique ba nekk ca euh, Kochebe ñoo defoon ñaaw téef boobu. tey ñuy taxaw ci keroog bi tirailleurs sénégalais yi lanke nag ni. duñu fekk ji Bamako ñoom ñoo ñu nekkoon ay prisonniers de guerre mi ngi nekkoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 1944 Marcel Dagnan jiite woon division Sénégal Mauritanie gannaaw bi la dem ca camp yi foofee nag ba mu fa yeggee dafa naqarlu li mu jàpp ni ab mutinerie la. gannaaw bi nag ci la daal di rek jël dogal ni dafay jëflante ak ñoom ba keroog nag ñuy jox tirailleurs yi seen gëdd Thierno Gueye jiite mbootaay gi ëmb surtout que tirailleurs yu sénégalais yi mooy siwaat ci dëgg googu amoon. si ñoom gendarme yoo xam ne bokkoon nañ ci ci français ci ñi def crime bi amoon na ñi nga xamante ne benn AMN mi ngi ci woon maanaam ah, boo xam ne m la boo xam ne de marque américain la mi ngi ci. amoon na tamit ay armes automatiques yoo xamante ne ay mitrailleuses yoo xam ne wëroon na camp bi léegi bi ñu wëree xam nga ne cent cinquante nga siffler rassemblement ñu des ci esplanade nga sone rassemblement ñu ñëw coup de feu yi foofu la commencé ndax ñoom benn bi ñuy dugg ci bato bi yoruñu fetal bi ñuy ñëw Sénégal yoruñu fetal ndax ay prisonniers la ñu woon li ëpp si ñoom ci prisonniers la ñu woon donc ñu benn arm ñu ordonné la feu ki nga xam ne mooy Marcel Dagnan ak Yves Baba Sall ñoom ay Saint-Cyriens lañu. ñoo organisé crime bi ak massacre bi biñ ko organisé nag ak massacre bi rey si ñoom lu bëri bëri bëri bëri bëri affaire bi daal ba bi muy am ba 9h30 jàpp 10h moins foofu la affaire bi jeexee maanaam rey gi bi muy amit bëccëgu dara kàmm nañ ko def bu guddi lañ leen rey bi ñu leen defee massacre bi ñetteel jot sa sauvé ñi jàpp nañ leen tëj leen def leen ay jugement ñu daal di jaxase seeni rapport ci effectif bi ne 300 dafa wàcc Casablanca c'est faux kenn wàccul Casablanca. nee nañu bi ñu ñëwee tamit rey bi cinq moo la 35 blessé ba mu yàgg ñu ne 70 la parce que 35 blessé yi après am na ñeneen ñu ci yokk ñoo xam ne bi leen reyee du loolu man ma Mabon bi nga xam ne damay liggéey moom maa ngi koy félicité de passage euh, Martin Mour du tubaab ak ki nga xamante ne mooy euh, benn photo photographe Yves Montré maa ngi ciy liggéey ñoom ay liggéeyu yu xarañ am naa sa ay plan yoo xamante ne wane na ne rey gi ëpp na téeméeri junni yoon li ñu naan 35 cinq 35 ba boo ko waxee nag day am benn frustration boo xam ne si suñu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ak ñoom bëgguñu ci wax parce que dafa ñaaw dafa frustrant léegi nag te boo ko waxee day mel ne da ngay yee li nga xam ne muy góom bi nga xam ne moo commencé am ci Afrique mu ne campagne anti français mais France moom bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax amuñu kóllëre amuñu ngor amuñu kóllëre amuñu ngor amuñu reconnaissance ñun jox nañ leen lépp. pour libérer leen te dañu continuer di leen jox ba suñu jon yàlla tey en 2022 ñu ngi continuer di servir la France di leen jox malgré yor nañu suñu indépendance mais suñu dirigeants yi nga xam ne ñoo ci nekk amul kenn ku osé dire non à la France rey googu nag ba mu amee effectif bi kenn waxtu boo ci waxee ñu defee ne da ngay def politique boo xamante ne alors da ngay indi affaire problème diplomatie ban diplomatie moo fi nekk ñoom dañ leen a geeral ñu war ñu fay suñu ñu leen ñu rey ñu merci beaucoup ci témoignage yooyu euh, très rapidement Mortal euh, massacre bi c'était le 1er décembre naam mais 28 novembre boobule euh, général Marcel Dagnan mi doon commandé division Sénégal Mauritanie bés boobu la demoon ca Camp Thiaroye mais li mu jeexalee foofu la ñuy wax rek tënk ko Mortal muy chiffres yi boobule que ça soit historien yi hmm. fii Sénégal ci tubaab yi dafa mel ni déggoowuñu ci chiffres yi muy le nombre exact de tirailleurs sénégalais ñi nga xam ne faatoon nañ leen waaw chiffres yi bis bu ne dañ koy nëbb hmm. chiffres yi moom Euh, ku nekk day joxe chiffre am mais euh, maanaam loolu euh, am na ay historien am na benn historienne Armel Mabon wax na ko mi ngi nekk maître de conférence la fële ca Bretagne du Sud ñëwoon na fi sax daf conférence dal di wax ni du woon mutinerie parce que nit ñi également foofu la ñuy réeralee xelu nit ñi ni mutinerie la ni dañ doon rébellé wu mais dañ doon kaas seen droit lu ñu rassemble leen daal leen rey massacre mu nekk massacre boo xam ni kenn mënu ko naatable lu ñaaw lu tiis la euh, ndax dañ leen a rangale ba pare tiire leen ay bal voilà malam ñenn ñi moom euh, sur le coup la ñu dee ñett ñoo ci am euh, survivants yi ñett lañu te lu tolloon ci ay mille deux cent et quelques mais bu ñuy wax dañ naan trente cinq morts alors que loolu pour man insulte la même à l'intelligence des gens ba boobu nag ba léegi François Hollande ñëw na fi euh, am na benn daje sax bu fi amoon euh, ñu daje mu amoon benn conférence ca université ndem si yàlla Iba Der Thiam waxoon na ni euh, France mettre na à la disposition du Sénégal lu toll ci huit mille documents mais ba léegi nii ba léegi nii français yi mënuñu toog excuser wu devant le peuple sénégalais boo seetee te loolu dal commencé wu léegi parce que même que Camp de Thiaroye mhm. film bi Ousmane Sembène dafoon ba mu koy njëkk a euh, ambassade de France bi dafa am lu ko naqari ba daa dem dafa jóge dafa dafa dafa jóg ci mhm. salle bi daal di dem yoonam mu mel ni mhm. euh, vraiment ñun aussi Sénégal euh, pour man am nañu foo xam ni dañ fa sooxe mhm. nga ngay gis benn datu premier décembre moom la ñu amal bombardement Thiaroye bi mais bu ñuy célébrer la journée du tirailleur dañ koy célébrer le 23 août man je trouve que loolu anachronisme la. c'est amul benn sens. merci beaucoup merci Mortala jërëjëf ci fàttali boobule euh, léegi dañuy jàll ci xibaar yi.